que ñëpp bokkuñu gis-gis sur ce coup là. dafa ci am mm-hmm. ñoo xamante ni dañu jàpp ni tey. Mm-hmm. ku politikul doo tekki. Mm-hmm. ku politikul doo am poste. ku politikul doo am xaalis. est-ce que yéen da ngeen bokk ci ñooñu. bon ñun nag euh, wax dëgg yàlla on est dans le privé mosuñu liggéey ci état mosuñu laal luy koom-koomu état ñoo ngi sant yàlla ñu ngi ciy gis suñu bopp ñoo ngi ciy toppatoo suñu njaboot bu baax donc ñun li ñu gëm mooy ku bëgg tekki da ngay liggéey. ku bëgg tekki dangay liggéey c'est pas que politique moo moo war a nekk la voie pour pour la réussite donc ñun dañuy politique pour defal suñu réew pour lépp loo xam ne mën nañ ko liggéey réew mi ñu servir réew mi ñun ci vision boobu la ñu toll. d'accord 23000 euh, jeunes yi ngay wax ñoom ñëpp am nañ liggéey wala. waaw vingt trois dëkk bi fi toll ak manque d'emploi bi loolu. ñoom ñëpp kenn amul liggéey. non pas ñoom ñëpp kenn amul ci liggéey am na ñu am liggéey am na ñu amul liggéey. y a des mais mais pourquoi yéen comme que da ngeen yëngatu social bi jàppale nit yi utaloo leen liggéey. waaw c'est-à-dire ñun tey am na ci ñenn ñoo xam ne comme monsieur ni mu ko waxee ñoo ngi ci liggéey ci centre d'appel bi ñoo ngi leen di fay. centre d'appel bi pour non man waxuma liggéey ci centre d'appel liggéey boo xamante ne ñu ne insertion création d'emploi parce que état am na ay instances yoo xamante ne c'est pour ça pourquoi mm-hmm. euh, ak ak Amadou Ba comme que yéen comme que assumé nga ne da dugg ci Amadou Ba ngay jàppale ko mm-hmm. Mm-hmm. que ngeen wax ko moom que am na vingt-trois mille jeunes yoo xamante ne amuñu liggéey ñu ñu jàppale leen d'accord voilà léegi pour tontu la ci wàllu boobu am nay actes yoo xam ne jot nañ ko po tey ñun euh, le mois na forum bu ñu defoon Thiès ci de commerce bi ñu tuddee ko forum économique sur l'emploi c'est-à-dire ak au-delà du bulletin les enjeux économiques ñu invité jeune yu bëri à Thiès invité la presse invité aussi euh, DER FONGIP 3FPT ak lépp loo xam ne état bi teg na ko muy ay formation professionnelle financement DER ñu invité leen gars yi exposé ñu bëri adhéré tamit bind seen projet déposé mm. c'est-à-dire que ñun dañ fi nekk aussi pour orienter mm-hmm. amuñu doole pour utal ñëpp liggéey c'est ça la réalité euh, mais euh, daal ñoo ngi ciy def pour le moment na solo